salaamaaleykum sénégalais yi man nee naa leen. tey damay wax te tey laay gën a mën a wax. parce que sama wax moo ñëw. ba gaay naan non dañuy lii dañuy laa man yàgg naa ka jooy. ngir yàlla war a sulli bàyyi leen Macky Sall bàyyi leen Macky sàll bàyyi leen Macky sàll encore. xam nga lu tax may naan bàyyi leen Macky Sall mi ngi mel ne benn fils à papa. fii sa papa papa ji reewal ko di defal lu nekk lu ne di ko jox lu ne reewal ko garanti ko lépp papa ji am benn puissance ba pare di ko defal lu ne ngeen téye xale bi naa xale bi dafa reew dafa lii dafa laa bu leen ngàññi xale bi ngàññi leen papaam Macky Sall ni naa leen li mu nekkee lépp général Moussa Fall la suñu homme de tenue yi la man dama dem ba ni makki Sall man nekk di wax sax ci moom man dafa may sonal général Moussa Fall moo tax Macky Sall xamadi Macky Sall réew Macky Sall nëpp Macky Sall terroriser sénégalais yi parce que homme de tenue la wax leen ma ban situation moo am te Macky Sall taxawul fële làqatu général Moussa Fall ni ko maa koy gérer réewante gi mu réew yëpp jàpp leen comme un fils à papa bàyyam mag yooyu mooy les hommes de tenue léegi léegi léegi léegi moom lu ko neex def mais yéen ñoom dañoo jël seen benn loi Macky Sall ba mu nee day wàññi. dem projet de loi mën na jaar assemblée lu wax constitution bi nee na même bu jaaree assemblée kenn mënul wàññi mandat kenn mënu ci wàññi un jour waaye tey na assemblée mën na yokk huit mois conseil constitutionnel nag ba doon défendre Macky xaar un jour conseil constitutionnel dañ leen a magistrat ñu ñu double plainte procureur de la république procureur du croisé bras le plus connard plus mauvais des procureurs le procureur yu bon règle la ñu Macky Sall Si indil ku ñëw ngay yaakaar moo tax ne keneen ka nekk mooy gën a yées Badio Camara la xaar conseil constitutionnel Nous wax loi bi assemblée de dañ koy rejeté wala duñ ko rejeté ñu connaissons une campagne préparation élection présidentielle c'est anticonstitutionnel mënul ñëw Mouska Waane ba dugal ko ci constitution bi mënul ne Badio Camara nag déglu leen de Macky film bu muy joué fu ngeen ko dul yaakaar fa lay ñëwee man nee naa sama xel dem na daw na bu yàgg Rose Wardini anamu actrice la dan ko woo ñëwal wutal double nationalité danan la jàpp lii danan la régleel sa àdduna yëpp après nan lan la jàppee jiiñ la liñ la jiñ leer nañ ba paré nga katch soldat yi tek ci mensonge yow ñu war la tej ba damm ji caab bi ñu défé ré nañ la tay jox na la liberté tay projet <laughs> eh, li Sénégal rek la fuga mag daal des fois day joué mel ko yor Rose Wardini limu def mais Karim wad moko dakk pen fen dàq duul heure bi fek waron ngeen dem jël ji Karim wad bu yag nok ci kasso bi yow da nga déposer nga ni déposer nga ci français bu yag pour renoncer sa national de française tontuwuñu la mais kon amoo droit déposer candidature parce que tontooguñu la kon bay annulé guñu ko lan moo tax nga yab ñu yab bu toll ne naan ma 2018 la ko déposé chaque année mi ngi dem di di di déposé waat pour ñu annulé ko mais annulé wuñu ko ça veut dire kay dindee guñu ko nga toog ba sa xol sedd naan da ngay yab sénégalais yi naan da ngay déposé Macky Sall comme loolu moo ko enragé nan la nu mën a xoolee yéen Macky Sall baax na baax bu toll ni naan ay Karim Wade kaas moo tax moo tax ma dañuy pousse élection yi yéen Macky Sall baax na baax boobu yéen yéen bu leen ko waxee di ngeen ko gëm. dil la indi Rose di def discours am ba boole ci euh, Rose Wardini xaw ma ci dil bi naan wii Rose Wardini moom sax lii ak laag laag lay parce que si dil bi la anamu génn na ana Karim Wade. moom lañu waroon indi dóor ci kaso bi ba fàtte ko ci mais déedéet Karim kenn du ko laal ci dil bi la léegi ngeen ni <laughs> allah akbar loolu li député yi war a topp toppuñu ko am na cas boo xamante ne dafa war a am journaliste député yoo xamante ne chaque jour dañ ciy wax émission teg leen pression bu rëy magistrat yi nu jiiñ fexe leen ba féeg deux avril balaa moo jot na ngeen ñu indil lu leer nañ nit ñu magistrat yi dañ leen a ger dëgg la preuve ngi nii ngeen jël Amadou Ba dóor ci kaso ba dama caab bi bu nekkee loolu amul fexe leen ba jëli ci Karim Wade ak magistrat bi ñi mu porté plainte dem leen ngeen jëli ji leen dóor ci kaso bi léegi nag dinañ xool du yéen a créé seen film fexe leen film bi àgg mais li ma naqari mooy sénégalais yi dañuy départ après deux trois jours ñoom ñëpp teg dossier bi fee ñoom ñëpp toog naa waa ñoo fi waxoon ñoo waxoon bii da ngeen koy suivre jusqu'au bout bu leen bàyyi mu sedd mënoon leen ñu pen pen bu toll ne bëgg naan da ngeen di reporter lu toll ne élection présidentielle. mais ne da ngeen reporter ci ay fen ba pare bu ngeen demee quatre cinq jours génneewaat beneen diversion jëlee teg ko ne. Rose Wardini bi ngeen jox liberté provisoire fan ngeen ko teg di ngeen ko wax ndey sénégalais yi lan moo tax Karim Wade ten ñu bopp ba léegi jëli jiw leen ko indi noq ci kaso moom it. parce que le 16 janvier le français yi di door a dénoncé te moom lan moom tax mu yab ñu bay déposé te français yi tontooguñu fan la ka teg fan. ba pare ngeen bëgg a toog croiser seen bras quoi ni ni non y' a rien du tout Mais ne Macky Sall deful dara le plus grand connard de l'histoire de l'Afrique. Moi, Macky Sall baaxul jagut santul yàlla. général Moussa Fall nag Nek ci ginnaam ku mu def loolu ñaa nga bañ mu jël ngi. géej baa ngi naan nii rek baag bee ngi dem ak dikk rek dem ak nii rek bés buy màbb dina bett ñëpp te conseil constitutionnel ñëpp a ngi lay xaar nag nga rejeter seen loi bi sunu campagne kon nañu voté Macky Sall abal ñu kenn bëggatu la mais doo ñu abal gars yi li may wax mooy suivre leen dossier bi Amadou Ba soir liñ koy jiñ dëgg la kaso ba liñ koy jiñ du dëgg ñi ko jiñ ñëpp nañ leen nokk ci kaso bi te conseil constitutionnel man lan moo tax procureur lan moo tax tey procureur moom lu toll ne magistrat conseil constitutionnel jox la plainte nga croiser sa bras lan moo tax parce que Macky parce que seen deal bi quoi Rose Wardini Karim Wade ci biir dégg nag dinañ xool na ndax Badio Camara ci deal bi nga bokk article bi loi bii ñu déposé Badio Camara si la ñuy xool ndax yow ci deal bi nga bokk ci ñi mën a gaase yëpp ci nga bokk parce que film bii yëpp ak ñi ñu porté plainte ak yooyu yëpp mën na nekk benn scénario ah ba léegi parce que man maa wóoluwul seen dara yéen waa APR lu ngeen def du dëgg ci fen ak duul ngeen dëkk ak ju njaaj ba ngeen fi nee ba léegi gëmuma leen lii lépp scénario film la ñàkk fayda weesuwul nekk magum jëm dem ba dëkk bëggatu la nga toog naan damay toog par force boo ñu bañee un ñëw la gën a jëppi Macky Sall la général Moussa Fall moom il n'est même pas digne de tenue mok ñi mu àndal ak di def seen ben complot te ben groupe bu ndaw la té président réwal ko ba mu réw ngeen waroon jàmbaarloog mom mu bëgg reporter ngeen taxaw ni conseil constitutionnel ngeen ni défendre parce que c'est la justice mais c'est la justice qui trahit la justice nek face à son peuple man bama né coup d'état nan ñu yag na mais bama kay wax dañu yakaron je parle pour parler am yo xamna jarul ñu la kay wax man dama xam lan coup d'état nan lay démarrer ñoom ñoom ñu coup jël Macky Sall teg ko fa seen pion ñoom général Moussa Fall ak ñooñu ku wax muy dëgg du dëgg muy loi du loi seen yoon nekku ci dañuy appliquer li Macky Sall parce que ñoo ñoo garanti lépp defal la neex. gars yi wasalaam ba beneen vidéo incha allah courage rek na gars yi gën a continuer waat surtout les leaders concerté wu leen teg leen pression bu tàng jër Macky Sall na xam ne fii mënatu fi diriger impossible. bëggatuñu ko te dootu fi diriger Sénégal te leader yi tant que génnul leen def benn groupe bu dëgër këj def loolu wallahi lazim Macky Sall dina ni sénégalais yi lam laamal ak ñoom dawal ak ñoom ñoom ñëppay bàyyi ñu continuer di doxal li ñuy doxal après nag wallahi li Macky Sall nar def ci dëkk bi sax xamoo leen ko après lii bu jàllee li mu fi nar defaat xamoo len ko leader yi jël leen seen responsabilité c'est maintenant ou jamais wax naa leen ko waxati leen ko wasalaam